de la jaspora où que soyez surtout ñu nekk jaspora xam naa ni seen xel yépp mu ngi ci réew mi et ils ont très peur et ils sont beaucoup plus préoccupés par qui se passe dans le pays que nous-mêmes qui le vivons en parce que boo nekkee bitim réew di dund su sori da ngay gën a nekk ci njàqare président Macky dafa ne moom ñooñam ñu nekk CEDEAO que Burkina Faso dañ ko war a sanctionner parce que dañu war a waxe kan lañuy ñuy war a dem élection que Niger junte bu fa nekk dañ leen man mënuma ci dara wéyal rek moo ci am moo ko wax wala waxu moo ko wax récemment ba mu recevoir les recalés il a dit que ce le conseil constitutionnel a décidé yàppa y a ba mu nekkee mandatam dig sénégalais yi dina ko wàññi de sept à cinq mu ne mënuma ci dara te boobu mu noon na démissionner mu ne mënuma ci dara parce que décision conseil constitutionnel amul recours ma yokk ci ni moom moom moo waat ni day aar suñu constitution article 103 constitution ni amul benn prox ndol boo xam ne mun nga fa jaar pour yokk su mandat bi benn fan du moom du ñun ñoo ko koy may walla tere ko ko du moo koy may boppam wala tere ko ko constitution bi nga xam ne moo ko may kattan ak doole muy digle force de défense yi di jëfee ñeneen di jëfee constitution boobu moo ne mandat bi cinq ans la te kenn mënu ko réviser du parlement du moom du keneen donc bu violer charte boobu avec la complicité du parlement dañuy jàpp ni kenn waratu ko obéir parce que effectivement c'est un coup d'état constitutionnel lan mooy coup d'état mooy nga jox sa bopp nguur wala doole goo amut bu fekkee ni constitution bi nee na la le 2 avril nga yem te yow si sa wàll bopp nga wax ko waxaat ko ñoo bëgg par des voies totalement illégitimes anticonstitutionnelles prolonger ce mandat-là avec la complicité d'un parlement c'est un coup d'État c'est de la haute trahison c'est ça la réalité et faut le dire le plus clairement possible pour que Sénégalais yi comprendre ce qui se passe il y a de campagnes de préparation de ce coup d'État di wax ay dañu war a reporter avant même que le Conseil constitutionnel fixe la liste avant même les parrainages commencé woon nañu di naat nañu reporter élection yi ñoom ñoo xam lu tax ñun ñëpp xam nañ lu tax wax ko fii day gudd waaye yàgg nañu waajal reporter élection yi parce que mosul préparé wu pour jóge ci fauteuil bi loolu mooy vérité bi donc bu ñu tollee fii tey mu ne day def loo xam ne constitution bi mayu ko ñun amuñu d'autre choix si nous sommes un pays d'hommes libres et dignes si nous sommes les dignes héritiers de notre démocratie et de ceux qui se pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays si nous sommes les Sénégalais fiers et orgueilleux dont on parle nous n'avons d'autre choix que de battre campagne électorale et de lui dire que c'est pas à lui de nous imposer avec un décret qu'il sait lui-même illégal. Parce que quand il dit, quand il a dit que je vais prendre un décret, il dit sans préjudice de ce que le, le, le Parlement décidera. naka ngay jëlee décret te xamoo sax Parlement ndax defa nara a rejeter euh, loi constitutionnelle bi am déet mu ne sans préjudice on arrête la la campagne électorale on va attaquer ce décret là effectivement dinañ saisir Conseil constitutionnel it ci loi bi nga xam ne dañ ko fa nar dugal wax leen ndax yéen conseil constitutionnel ginnaaw président nee na toog naag seen président conseil constitutionnel ndax yéen da ngeen di d'accord ci li président di def ndax da ngeen nangu donc que yéen dañ leen ger ba nga xam ne situation bi graaw na ba xam ne war nañu reporter élection dinañ leen saisir mais opinion bi tamit war na leen saisir lu ci mën a am pour bañ a guddal mooy li yi wax demee campagne électorale day commencé ñu ngi ñaan sénégalais yi fépp fu ñu mun a nekk ci réew mi dëkk bu ñu mun a nekk nañu campagne ndax réew mi du réewum Macky Sall cinq ans yi amul lu ñu dundut lu ñu mësatu dund ci Sénégal des émeutes mu dugal système de parrainage honteux et odieux qui nous a conduit dans cette impasse terrible tout cela tout ce qui a détraqué notre démocratie c'est le président Macky Sall qui est à l'origine avec des appels répétés au dialogue yoo xam ne fu muy mujjee mooy rendre encore la démocratie sénégalaise plus malade plus fragile plus minable donc un énième appel au dialogue ce sera pour les mêmes résultats en tout état de cause demain comme ni ñu ko waxee rendez-vous fii cimetière Saint-Lazare ñu def suñu caravane de l'ensemble des candidats mais c'est pas qu'un problème de candidat du candidat yi rek c'est le peuple sénégalais c'est la constitution du peuple sénégalais c'est le mandat du peuple sénégalais c'est le pouvoir du peuple sénégalais donc on demande au-delà aux force vives de la nation aux syndicats aux jeunes étudiants yoo xam ne dañu tëj université yi depuis six mois Macky Sall wanewul taxawaay bi mu waroon wane pour étudiants yi reprendre faalewul loolu ñooñu dañu nii ñi nga xam ne dañu toj seeni kër ñi nga xam ne amuñu xëy yaakaar yaakaaroon ni moom la 2 avril dina fi jóge beneen dudd commencé dañuy wax ñoo ñëpp bu fekkee ni mbirum Sénégal yitte na leen bu fekkee ni lu ngeen di dund tar ñu ngi leen di jox rendez-vous la fii ci euh, euh, pont Saint-Lazare bi ñu xool force de défense et de sécurité à partir du moment où la constitution à laquelle vous obéissez. Vous n'obéissez pas un homme, vous obéissez à une constitution. À partir du moment où la constitution dit que le terme du président de la République, c'est le 2 avril, le 2 avril, vous ne lui devez plus obéissance. Je vous remercie.